bisimila président Bassirou Diomaye Faye ndeke kàddu yam yëkkati barki déem bañ jubee campagne électorale bi doon yedd way politique yi ci noppi tëx la tàbbi Sud Quotidien yi waxee booba lépp yéene kaay ne président Diomaye la mu wax daa mel ni kenn déggu ko ndax campagne électorale bi daa door rek fitna tàmbali ci ndakaaru journal bi ne yëf yaa nga doore ca siège taxawu Sénégal ba ñu taal yéene bi ne état majoru sàmm sa kàddu booba dañu ko songu barki bii ci guddi daanaka mu lu garaaw a garaaw la ko ko tey woote daal ministre de la justice moom nee ay enquête ubbi nañu ko ngir xam ñan ñoo def jëf ju ni mel waaye itam xam ñan ñoo songoon cortège u Abbas Fall Abbas Fall mooma yéenekaay yu bari ne waa takk wàllu seen xel ca moom la dem ba ñu taalee seen siège booba révélation ne moom kay amul jiixi jaaxa Barthélemy Dias Abbas Fall la tuumaal ne bu nu ko tegul loxo nag nanu xam ne justice amul ci Sénégal direct news ne baaraam tuuma ju rëy sax la waa sàmm sa kàddu joxoñ Abbas Fall ne lii mënta doon kudul moom ndax moo fi menacé barki démb woo ay militant am ak partisans wam ñu armé formé wu fas yi ne defante gannaaw ba ñu songee seenu cortège waral booba lépp journal ne Abbas Fall xotti wooteeg jàmm ga jomaay woote woon sàkku ca waa Pastef yemu àndal ñu jëfandikooy ngànnaay Barthélemy Dias ne loola rek doyoon na ngir ñu teg ko loxo moom Abbas Fall waaye critique ne Abbas Fall mooma gannaaw kàddoom yooye mu yëkkati jéggalu na nee na tuub na la mu waxoon dellu na ca ginnaaw waaye nag ma ngay sàkku ca ministre de l'intérieur mu jëli responsabilité am ndax songu ga ñu songu cortège am barki dem moom it lu ne xajoon na ca critique moo may laaj dal vox populi ne en tout cas Dakar moom fitna dekkiwaat na fi yéene kaa bi ne convoi Pastef dañu koo song ci Dakar noppeeguñu ca loola siège taxawuñu taal ko cocktail molotov Khalifa Sall ca boobu lépp yéene ne day porter plainte ci jëfu criminel gi waaye nee na jëf jooja xam nañu ñen ñoo ko def xam nañu it ban signature la gàddu te it am na image ak vidéo yi mu dolli ca it ne am na yoo xam ne duñu ko nangu te xam le it ne ña def jëf ku ne na kër ku ne it xam nañ fa da ko waajal te daal ministre de l'intérieur ak ministre de la justice yi ñu am dañoo far waaye Bart ne ñu def loola it bu nu yaakaar ci ñun ñuy fayu ndax ñoom nee jàmm ak dal lañu woote l'observateur dikk ci audition raté bu Abbas Fall ca section de recherche yéene cabinet bu dee dégluwuñu Abbas Fall vigile ba ak ñeent garde yi doon nelaw ca siège taxawu ñoom déglu nañu leen ci mbir mooma tax Walf Quotidien ñu ngi ci pente bu dangereuse ci campagne bi ministre de la justice ca boobaleb journal di diggéeb enquête loola it la wax ca Le Quotidien mi gis cocktail bu explosif ci campagne électorale bi journal booba joxoñ seetu taxawu bi ñu taal ne dellu na ca ginnaaw société civile bi moom ma ngay woote jàmm ca boobaleb journal ca l'info boobaleb société civile di wone njàqareem ci campagne électorale beeg ni mu doore yéenekaay bi ne campagne d'indignation kay moo am ndax li xew ñépp a koy ñaawlu booba dem ak ñun mbuur yeggee ñu engagement yi fa Ousmane Sonko jël ci kanamu askan wa muy suqali napp gi waaye itam xeex émigration clandestine ba ndaw ñu dootuñu gaal di dem bitim réew yoor yoor bi ne mbuur googa ba fa Sonko demee tapis rouge lanu ko lalal yéene cabinet dañu ko teeru nanuy téeroo buur askan wépp génn Sonko janoog ñoom ne leen nous n'avons pas le droit vision Sénégal bi ndaw yi yéene ko moom du ñun bu ngeen jàppale seeni njiit seen bopp ngeen jàppale Ousmane Sonko teg ci ne ay débat di de lañu bëgg ca Assemblée nationale ne amuñu sax baccalauréat ca les écoles it Ousmane Sonko ngay gaaruwaale Barthélemy Diaz ak Amadou Ba journal bi ne ma nga door ak Barthélemy Diaz ne yenn tëdd liste yi ña ngay wax waaye baccalauréat sax amu ko gannaaw werante xuuxante ki tubay Ousmane Sonko ne na publier CV wam Amadou Ba moom Ousmane Sonko ne ñaari rapport épinglé na ko te lépp danañu ko publier enquête ne leneen lu Ousmane Sonko wax te mu jaaxal ñépp mooy compte bu mu ne fekk nañu ci ay milliards yéenekaay bi laaj ne loola scandale la mensonge journal ba ne lu mu ci mën a doon loola accusation bu garaaw a preuve amagu ca lii la opposition bi tontu sentif nag interpellé nañ ko ci ay itam di wax ci règle anti blanchiment obligation de transparence révélation ne compte booba Ousmane Sonko ne fekk nañ ci milliards kay jur na coow débat bu rëy a rëy la indi lii quotidien ne débat bi dëgg kay mooy diggante Barthélemy Diaz ak Ousmane Sonko ana kana cay dund bi ne xeexub législative yi gën naa fësee ca ñoom ñaar ndax ñoo bokk génération te itam xamante waaye li waral xeex bi metti ci ñoom ñaar journal bi ne mooy Ousmane Sonko ak Barthélemy Diaz yëpp xam nañu ne jongante bi tey jii la tàmbali Vox Populi ne waxtu woowa Ousmane Sonko tàmbali na ca Mbour débat beeg e wi xam Macky moom booba jamono yoor yoor bi ne ma ngay def campagne électorale ci WhatsApp moom mi jiite listub coalition takku wàllu Sénégal l'observateur yi ci Macky mooma la xëy moom te dali sa takku wàllu Sénégal journal ba gis ne ma ngay exposé boppam ci désaveu bu rëy yéenekaay bi def ab enquête ci ñëwam gi ma ngay défier Ousmane Sonko meeting la doon amal ca Diourbel yéenekaay bi ne mbooloo mu baree bari la jàkkaar lool ne leen Ousmane Sonko na nangoo débattre ak man su boobaa danaa ko won moom comprendreul dara Abdoulaye Sylla ne businessman ba ma doon dana ko won moom fiscaliste bi naka la ñuy créer alal temps wu Amadou Ba nag Abdoulaye Sylla ne wees na réew mi jox na ko lépp kon daa war a lem jàjjam dem toog génn ci politique bi ndax amatul lenn lu ci mën a ndil askan wi Ousmane Sonko moom libération ne la mu dig askan wu jifeer mooy dana leen delloo seen juróomi junniy hectare journal booba it xamal ñu ne ñu ngi jëm ci xeex bu métti diggante Mabouba Diagne ak exportateur arachide yi libération ne ministre bi ay réglam la teg te bëggut kenn salfaañe Ndiaye rafetlu nañu booba lépp audit finance publique te itam waxaat nañu ne danañu jàppale Sénégal jàppale ko ci nouveau référentiel bi président Bassirou Diomaye Faye bëgg a doxal ngir suqali Sénégal Le Soleil nañu référentiel booba di vision Sénégal 2050 président Bassirou Diomaye Faye yóbbu na ko ca Arabie Saoudite exposé ko fa yéene bi ne ma ko def ca forum sur l'avenir et l'économie mondiale ga mu teewee ji ca Arabie Saoudite googa L'Observateur ne a am ko itam ci dundinu askan wu Sénégal équipe nationale beach soccer bu Sénégal secret juróom-ñetteelu Coupe d'Afrique des Nations gi jël l'observateur nga ñu koy xamal sekk ca waxtaan ak coach Ngala Sylla mi wax la waxante ñoom ña nekk ca équipe booba gannaaw ba leen Mauritanie gagné yéenekaay booba it nettali ñu histoire Alseyni Ndiaye mi ange gardien nekk itam légende beach soccer waxtu woowa réew mi quotidien naan ñu Rodri la jox Ballon doon roi des arènes ñu tàbbi ci libération mi topp ci tànki cheikh demba ñang mi faatoon soxna sa doon jaay boppam ñu ne ca ngor yéenekaay bi ne moom cheikh ba mu dóoree ba noppi ba xoj nday koddu saar dafa dugg ca douche a koy teg loxo ca mbuur nag muy waaja noppalu ca tefes ga yéenekaay bi ne yére yam soloon la sol ndax ma nga takk deret yóbbu nanu ko kaso meurtre la nu koy toppee waaye itam sàcc ñaari téléphone ka mu faat amet ndooy mi ñuy toppee dawal te amut permis mu ne woon ci garde à vue yéenekaay bi defeere nanu ko démb waaye retour de parquet la mujjee am tey jii lanu koy delloowaat ca tribunal ngir mu gisee procureur de la république mu létt ko mbaa mu firi ko ñun ñu ngi leen di dig daje ëllëg incha allah di leen ñaanal yendoog jàmm